waaw ñuy dalal Abdou Faty di secrétaire général bu Sels Authentique lay matu comme ni nga ko waxee moom mu bokk ci G7 Abdou Faty ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen di fay. Euh, monsieur Faty euh, tey jii ñu lay dalal gannaaw nag G7 ba mu euh, dajeek ki nga xam ne mooy ministre de l' éducation nationale Mamadou Talla ci bés yi ñu génn lan la ñu mën a jàpp ci seen ndaje googu. waaw wax nga dëgg dajeek nañ ñu monsieur Talla ministre de l' éducation nationale mais également ak charge yi ñu dañu dajeek également présidente au conseil du dialogue social. yëpp euh, dañ doon discuter si rentrée le deux juin bi nga xam jul antu mhm. euh, wax nañu nag li ñu xalaat Innocence Ntap Ndiaye ba ñu dajeeg taala dañu toog nañu nañu def ñàngat ñàngat mhm. ni xool lan moo waral euh, échec bi ñu am le deux juin mhm. su dee ñoom gouvernement bi dañ ne waaw dafa am ay jàngalekat yu ñu testé positif ñuñ dañ ne da ngeen siy yokk ni Euh, kenn préparé wul déplacement jàngalekat yi kenn préparé wul protocole sanitaire bi parce que école yu bari matewul woon moo taxit nag waruñu defaat beneen erreur suñu defaatee beneen erreur rek dina doy waar. Mhm. et dafa am lu bari dañ ko ratee ñun ñi nga xam ne ay partenaires sociaux lañu ba ñu demee bay ubbi dañu dem ba si biir gars yi bàyyi ñu si yoon bi donc rencontre bi c'était pas inclusif moo tax euh, conséquences yi ñëpp gis nañ ko ratage total conséquences bi ñëpp gis nañ ko école mujjul ubbi waaw kon daal bu ma la déggee ngay wax tey jii euh, amul benn yoon dat bi ngeen jàpp si ñaari waxtaan yooyu. waaw léegi bañ ko rencontré ne ko puisque def nañu erreur war ñu def beneen erreur léegi li ñu war a def ñun ñëpp mooy dañu toog ñu def communication boo xam ne dara xelu parents yi dara xelu élèves yi dañu war a toog également jël si temps bi xool ndax li nekk si protocole sanitaire bi muy thermoflash di euh, gel hydraulique di gel hydro euh, di di gel yi di. colique di également lave-mains di masques yi etiske yëpp mate na si école yi mm-hmm. est-ce que école yi amul douche defar nañ si douche wala indi nañ si ndox euh, ba pare également sunu jàngalekat yi nga xam ni euh, ñu ngi biir bi Bignona ba pare feebar fa est-ce que niñ leen di jëlee en charge ñu ngeen koy jëlee correctement heureusement jël nañ leen correctement en charge ba démb ñëpp wér nañu ba mu des benn jàngalekat ñu ne leen également jàngalekat yi nekk si àll bi nga xam ni chanteur bi Baaba ñëpp nañu xam ni seen i doom lañu seen i rakk lañu seen i nawle lañu dañ fa ñëw liggéey rek su ñeen jox a mais kiyal leen ay baaraam seen nekkin dina fa metti ñu ne nag ñun jàngalekat nañu fexe ñi nga xam dañ leen joxoñ baaraam yëpp ñu génne leen fa yóbbu leen feneen su loolu yëpp matee nag mais ñu xool ni ñuy ubbee wante ubbi léegi léegi nga xam ne loolu yëpp matewul ubbi léegi léegi nga xam ne démb ak barki démb soo jëlee sud euh, Tambacounda région Ziguinchor taw na ba abri provisoire yëpp naaw na taw na ba école yu si bari commencé am na ndox wax dëgg yàlla ubbi école bi léegi ah, suñ ko ubbee tamit dañuy forcer rek suñ ko ubbee tamit dañ koy ubbi pour benn catégorie de jeunes sénégalais mais l'immense majorité des jeunes sénégalais duñu dem école parce que seen classe yi matewul parce que ñu si bari seen waajur yi si ñoom lañu yaakaar pour bay donc ñun ñu ne li ñu xalaatoon mooy na ñëpp dal ñu waxtaan ak sénégalais yëpp ñu xaar ba mai mois de septembre ñun ñëpp manko ubbi école bi dawal octobre dawal novembre décembre ñu def examen yi année scolaire deux mille dix neuf deux mille vingt deux mille vingt et un démarré par janvier de loolu la ñu xalaatoon Sels Authentique. kon daal amul benn date bu ñu jàpp ne moom la ñuy euh, delluwaat. classe léegi min waaw ministre de l' éducation nag nee dafa doon ñëw pour ñu waxtaan xool ñu euh, vraiment li nga xam ne li fi jotoon am ñu xool naka lañ koy weesoo wante moom jëlagul date dafay ñëw déglu ñu dina déglu société civile déglu parents d'élèves yi avant ñun ñu jël ñun nag loolu yëpp wax nañ ko ko ne nag. Euh, waruñu def beneen erreur si rentrée bi puisque waruñu def beneen erreur si rentrée bi déglu nga suñu xalaat déglu xalaatu société civile parce que ñun ak société civile benn xalaat la. Hmm. defe naa soo ko jëfee erreur yi dina wàññeeku mais soo fi jëmee forcé ah ñun de ay fonctionnaire lañu ñun fi ñu suñu taxawaayu dem mooy suñu taxawaayu tey soo ko jëmee force si situation boo xam ne parents yi sax wóoluwuñu jàngalekat yi situation boo xam ne élèves yi sax wóoluwuñu jàngalekat yi situation boo xam ne ñu dañu xaw a traumatiser affaire bi am ratage ah kooku moom kon bu ma la déggee ngay wax Sels Authentique ñoom euh, jàpp nañ ne bite bi du mën a yemb lu dul euh, weeru septembre. waaw ñun Sels Authentique vraiment ba ñu xoolee suñu camarades yi wax ñu laaj leen ci région yi ñoom ñëpp wax ñu li am ci région yi yónnee ñu situation yi surtout surtout situation école yi nga xam ni yemb na yu si bari école yi yembul. waaw ñu si bari également matériel ba yeggul waaw ñu foog ni nag wax dëgg yàlla war nañu waruñu daw bay daanu war nañu pousser tuuti xaar ba septembre peut-être soogu ubbi c'est pas parce que nag en Afrique c'est vrai en Afrique ñëpp ubbi nañu mais en Afrique également il faut le dire euh, gars yi ubbiwuñu tëjaat jéem dem ñu reculer wuñu mais ñun dañu reculer donc moom impact bu doy war si xale yi si population yi donc bu ñu def mimétisme nañu xool lu dal suñu xel ñu def ko te defe naa ñun de li dal suñu xel mooy négandiku ba euh, septembre defar li ñu war a defar yëpp pour ubbi si jàmm ak salaam. ndax position boobu la g am. non du position boobu la G7 am kooku sunu position la te incha allah G7 day suba en visioconférence dañ si partagé ñu xool puisque le groupe est plus intelligent ñun mun nañu jum comme mun nañu bañ a jum lu groupe bi décidé rek ñu ànd si loolu jébbal ko askan bi Abdou Faty tey jii euh, repousser njàng mi ba weeru septembre examen yi bu boobaa kañ lañ koy amal. waaw suñ ko defee examen yi booba mois décembre lañ koy lañ koy amal waaw incha allah mois décembre lañ koy amal euh, dañuy jàng septembre octobre novembre décembre ñu def ay évaluation année scolaire deux mille vingt et un deux mille vingt deux mille vingt et ñu commencé ko janvier. Mhm. waaw defe naa ni moom su acteur yëpp euh, seere seen digg rek je pense que mën nañu relever défi yëpp. Mhm. tey ji est-ce que euh, repousser examen yi ba weeru euh, yi nga wax ni weeru décembre du am benn njeexital ci li nga xam ne mooy agenda wu état ci li jëm ci préinscription yi. waaw dina si am euh, njeexantal bu ndaw mais loolu du agenda wu état sax agenda wu particulier la parce que préinscription yi moom ay particulier la ay peut doomu privilégié. organisé par l'État wante euh, vraiment prescription yi moom taxuñoo jóg li ñu tax a jóg daal mooy ñu am système boo xam ni euh, du ñu infecté xale yi di am système boo xam ne dañuy protéger fonctionnaire yi siy liggéey mm-hmm. euh, su ko defee déwén ñu jublu si ren ñu bañ a dem ay prescription loolu taxul monde bi daanu loolu taxul également système éducatif bi nërmeelu prescription moom ay mbiru bourgeois la mbirum ñoo xam ni dañu am xaalis boo xam ni peut-être dañ koy jeter par la fenêtre mm-hmm. wante li si des fii amul benn jàng xeetu jàng bu ñu mënul jàng fii Sénégal nit ñi rek ñooy taamu waaw naan maa ngi dem Amérique ak maa ngi dem France ainsi de suite fii gis nañu sunu doom yi jóge fii poly polytechnique bu Thiès fii kenn gënu leen xarañ ñi jàngee Amérique wala gën a jàngee France gënuñu leen xarañ. Mhm. wax nga ko tout à l'heure tudd nga leen ñoom ñooñu di enseignants yi nga xam ne dañoo amoon virus bi seen état tey ji fu mu waaw ñu ngi siy sant yàlla démb waa G7 dem nañu si centre bi ñu leen di téye waa bi fële euh, Bignona. Mhm. dem euh, indi seen soutien moral ak seen soutien financier waaw yàlla def nag mu coïncider quand même euh, genn wàll gi yëpp di génn ñu accompagner leen wutal leen ay oto ñu dellu seen kër mu des fa benn jàngalekat rek vraiment rafetlu nañu. taxawaayu autorité sanitaire yi fa nekkoon nekk ñu yëral condition ñu rafetlu également sunu camarade G7 yi ni ñu leen toppee boobu ba tey di ñaan yàlla ki si des fii suba gannaaw suba euh, mu jóg euh, dem doxe ay soxlam am na tamit leneen am na ñi nga xam ne ñoom ñooy enseignants yi ñu jëlee woon fii euh, ci terminus Liberté cinq daal di leen yóbbu ku ci nekk fa ngay jàngale ñoom lan mooy tey seen taxawaay gannaaw nag jàng mi ba tey ñu ngi koy laam-laame xamaguñu kañ lay tàmbali. waa ñoom euh, ñu si bëri euh, quand même dañ leen joxoñ duut baaraam naan waaw ñu ñoo fi indi corona ba sax gis ngeen ay baaba maal euh, di ko ñaawlu léegi dañuy wax baa bàjjenu gox yeeg relais communautaire ñoom ñëpp ñu jóg si mm-hmm. parce que lu mu yàgg yàgg corona dana jeex te ñun ñoo fiy toog ay sénégalais ñuy jóge feneen ñëw si dëkk yi di jàngale seen doom yi parce que dañuy bañ rek jàngalekat yi découragé jóge si gox yi ñibbi ci am na ay jàngalekat yoo xam ni que ubbi nañu transport bi dem nañ ñibbi seen kër di xaar ak jàngalekat yoo xam ne également nee na ni ñu leen jox xorme ñoom xalaatu suñu dellu si dëkk yooyu donc waxtaan nañ seeg ministre de éducation pour que jàngalekat yi nga xam ne li ñu leen stigmatiser ñu xool ñu leen di jëlee benn prise en charge ak ñi nga xam ne également lu ne wax nañ leen ko su dee sentiratuñu seen bopp si dëkk bi ñu affecté leen feneen loolu moom wax nañ ko ministre de l' éducation di lancer un appel à travers rajo. pour que ñëpp xam ni seen i jarbaat seen i doom nekk ay sénégalais li leen fandi mooy liggéey rek liggéey pour soqali seen gox ah, parce que dañuy liggéey pour que seen doom yi a dugg école jàng école. Mhm. Abdou Faty ñu jeexalee ci li nga xam ne mooy âge euh, retraite ñu gis ne euh, tey jii euh, ñoo ngi ne âge retraite soixante cinq ans la ci profession spécifique lan moo ciy taxawaayu Sels Authentique waaw âge retraite bi dañu xëy bis benn loi euh, Macky Sall signé ko loi boo xam ne dafa am ñu muy yokkal pour ne pas les nommer médecins yóbbu seen âge retraite à soixante cinq ans ñun nag loolu wu ñu mën na nekk un acquis social pour benn corporation mais li ñu dérangé rek mooy Sénégal dañu war a bàyyi ay sàtt yu am doole ñu koy ñu koy taaye Euh, ay charte yu am doole ñu koy rafistole xam nga nii lañu fi defoon constitution bi def lu leen neex mbam bëggee ngi fi ba tey ñu jël système de rémunération bi Abdoulaye Wade caxat caxatee ko ba tey problème am na si si léegi tey loi bi nga xam ne dafa fondamental mooy loi 61 33 bii régir statut général wu fonctionnaire yi mhm. mais moom la ñu xëy caxat caxatee te ñëpp xam nañu loi euh, mënuñu ko mënuñu jël loi bi rek am ñoo xam ne dañ leen di mbubb loolu mënta nekk loi bi niñ xaw ma ni ñu koy waxee si wolof mais dañ ne loi dafa am euh, portée générale ak loi dafa impersonnelle. à mhm. ah, ce que je sache ñëpp xam nañu médecin yi du corps spécial bañ leen di bañ leen di bañ leen di taayee del médecin yi comme infirmier la ñu comme jàngalekat la ñu donc li defal médecin yi donc ñun dañuy jàpp ni euh, dañ ko war a élargir à tous les fonctionnaires wala fonctionnaire bu bëgg ñu def ko en optionnel mu ñu toog rek di jël benn loi fondamentale di ko taayee koo xam ne day toog profité si situation xoj état parce que nañ ko wax te dee médecins yi dañu xoj état bi ndax mbas mi parce que mbir mu projet boobu mu ngi foon depuis 2017. Mhm. ñu xëy rek taayal leen benn boulevard ne ñoom dañu di yóbbu ba soixante cinq ans day indi ay problème nañu suñu central mul CSA. Mhm. coalition centrale les plus représentatifs dañ leen touché muy Mademba Sock di Moussa di di di euh, madame Ba di effectivement Cheikh Diop. pour que nit ñi toogaat ñu bàyyi fooy charte réew mi def ay réformes yu am solo ci soixante et un trois bi bàyyi ay réformes yoo xam ne day indi coow rek si dëkk bi donc euh, su leen neexee ñu allongé l'âge de la retraite mais nañ ko généraliser bu ñu xëy rek jalgati charte yi defal ko pour ñenn ñi bàyyi ñenn ñi. da ngeen cee àndul daal. ñu ànduñu si ànduñu si si niñ ko defee añun ah, suñu problème du am problème sax ñu yokk soixante cinq ans. Mhm. mais niñ ko defee dafa war dafa am tëralin dañu war sukkandiku si ay charte. te soo sukkandikoo si charte bi ak li bi wax mooy su def nañ ko baax na décret d'application yi la ñuy xaar ñu élargir ko force de l'ordre élargir ko effectivement ñi ko soxla élargir ko également ñi nga xam ni ñoo bokk demin ci euh, charte réew mi ñi xam ni ñoo bokk situation si statut général de la fonction publique jàngalekat yi ak médecins yi ñoo bokk situation médecins yi ak inspecteur du travail ñoo bokk situation donc lépp la war a laalee balaa ñuy jël rek seppi ñenn bàyyi ñeneen ñi à contre-courant de la loi. Abdou Faty secrétaire général Celsi authentique euh, membre du G7 ñu ngi lay euh, jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup merci en tout cas Ouleye Matu ñu lay delloowaat antenne bi Abdou Faty euh, doonoon suñu gan waxtaan wi pare.